asalaamaaleykum ginnaaw ba ma leen nuyoo ndok mbokk internet yi nga xamante ne yéen a safoo di seetaan télé bi nga xam ne mooy li ci réew mi alxayri ba nag jib na jot nañu information sànq ci tàkkusaan bi ne rakku Aziz Ndiaye bi di DG Albourakh TV di bàyyi Ndiaye takk na Betty bi nekkoon série Pod et Marichou mu daal di koy def nag ñaareel soxna deuxième femme ah alxayri ba jib na de kër gaa ngay yëngatu ñépp waaru nañ fi mu nekk nii alxeyri ba jib na pour yeneen information ngeen abonné ci page plus bu ci réew mi pour yeneen information yeneen yaa ngi ñëw ah,

xale yi comme sa papa yi yow la ah comme ni nga wax auparavant ci début bi xale yi comme sa Ah, macha allah.